leen ragal yàlla ñu baax ñi ñu baax ñooñu nga xam ne dañoo wut ab yóbbal bu jëm alaxira ci topp yàlla ña nga taxaw temm di jaamu yàlla tey xaar nag bis pénc yàlla moo leen jegleel ci baaxam déggaloo leen bànneexu waxantee ma moom yàlla moomu moo leen taw fii ñoom ñu baax ñooñu ñuy sàmmook julli ajjuma di sàmmook julli mbooloo yàlla kat mooy ki nga xamee ne moo jënd ci ñi gëm yàlla seen bakkan ak seen alal moo ko jëndee ajjana maa ngi koy sant moom suñu boroom di ko selal ci lépp lu yellul ci moom di ko sant cant ku ñu dëggu ak ñu doylu ñu dëddu àddina ak ñu doylu di seede ne amul benn buur bu dul moom amul nenn amul bokkaale seede boo xam ne dana musal ki ko wax ci tiitaanga yi bis penc di seede ne Seydina Muhammad sunu sang sunu yonant jaamam la ndawam la moom mi nga xamee ne ay muxdisaatam feeñ na ci waxtu wu ne yàlla na yàlla julli ci moom ak yéen ak saxaabaam julli ak sëlmal goo xam dañuy ànd taxoo ba bis penc sëlmal ci moom sëlmal gu bare bare ginnaaw loolu mbokk yi waxtu bis penc suñ boroom wax na ko ci lu bare bare ci alfaan ne jege seen wut ab yóbbal ci topp yàlla jot na dig bi nga xam ne mooy dig bu dugg ba jege na waaw lu waral tàggante gi lu waral cànku gi ndax bët yi dañoo gisatul wala xel yi dañoo xalabatul aka bari ay waaraate yu ñuy déglu ajjuma ju ne waaye taxul ñu tuub taxul ñu dellu ci yàlla xanaa gi suñu ne màndarga yi yonent bi waxoon ne bu amee bis penc jege si na màndarga yooyu mi ngi ñëw ci toxtaloo astratan mi ngi ñëw te nëbbuwul kenn mbokk yi xanaa gisuñu yàqute gi ni mu feeñee ci géej gi ak ci jër yi xanaa gisuñu ak taxeet yi ni mu yaatoo xanaa gisuñu ni ñuy sànkee julli te mooy keneen diine xanaa gisuñu ni ñuy bañee joxe asaka xanaa gisuñu ñàkk kilifteef ni mu tàmbalee di yaatu nga xam ne daanaka kenn yiliftul kenn mbokk yi xanaa gisuñu faat bakkan ni mu woyofee léegi nga xam ne day mel ni du dara tasaaroo ci biir nit ñi xanaa gisuñu njiit yi ni ñuy jengee ci ñu jiite te yëpp daa bokk ci mandargam bis penc xanaa seetluwuñ seede léegi ni ci nit ñi ni ko nit ñi woyofalee di seede lu amul di seede lu dëgg tam doon lu rëy fa yàlla mbokk yi xanaa gisuñu léegi sax boroom xam-xam yi sàkkootuñ xam-xam ngir yàlla waaye dañu koy sàkku ngir pukkariw di ko sàkku ngir di ko dara jawoo di ko taaroo mbokk yi kenn ku ne am nga ku lay jàppale waaye daa mel ne dëgg moom amul ku ko jàppale mbokk yi ñun ñëpp xam nañ ne yàlla moo yàlla xam nañ lu yàlla digle xam nañ lu yàlla tere waaye toppuñu yàlla de xam nañ yonent bi sallallahu alayhi ne moom la yàlla yónni xam li ko yàlla jox xam li mu ñu wax waaye taxul ñu topp ko de te moo ne ñun ñëpp nag xam nañ ne iblis mooy sunu noonu waaye teewul ñu ngi topp iblis de lu ñu iblis woo fu ñu iblis woo rek ñu wuyu ko mbokk yi dañ xam ne mbon gi tasaaroo na yaatu na te kenn ci ñun bañu ko li araam léegi ñu ngi koy def mu ne fàng kenn bootu ko njaaloo tasaaroo na ci biir mbindéef yi nger gi dugg na fépp ba fa ñuy attee ba yàq léegi atte ba la waroon am ñu tegg ko teg fa lu wut am léegi daal ku mën a joxe ku mën a làmb poos boo demee ci yoon yaay am dëgg boo yorul xaalis loo am am dëgg dëgg dëgg boo demee ci yoon ñu nat la mbokk yi ñu ngi ci jamono joo xam ne nii ku am xaalis te xamoo dara ñu teg la ci kaw loo bari bari xam-xam te amoo loo wax ñu sànni te kenn du la teg fenn mbokk yi kër yi di taaru na kenn ku ne fexe ba sa kër di dund waaye jàkk yi dund luñ ko de mbokk yi mooy yàlla mi nga xam ne mooy jabaara tasaaru na de waaye mbir mi tar na lool nag ci néew ji doole ji ak ñu ñàkk ji mbokk yi ñu ngi ci jamono yoo xam ne ku ñëpp sa diine dangaa mel ne ku ñëpp xalu sa war dem nañ ba biddaa mooy sunna na di biddaa dem nañ ba la mel na yow yaa nekk ci ay caaxaan dangay dem ba jëf li sëñ tubaa digle woon ñu mel na yow yaa nekk ci lu dul dëgg mbokk yi sëñ Tuubaa daan tere ku simi mbaxana di nuyoo te léegi ku ko deful ñu ne doo murit te sëñ Tuubaa da koo tere woon maam Thierno ne ko loolu aaday tubaab la mooy tiire di sàppo mbokk yi foofa la jamono ji toll boo jëfandikoo ndigal sëñ tubaa ñu ne amuk taalibe kon mbokk yi nanu xam ne mandarga yi yonent bi waxoon ne bu agsi buñ ko gisee bis penc teew na ñu ngi ci mandarga yooyu yonent bi nee woon na bis penc balaa taxaw suuf dana mëdd ab kuréel sama xeet muy tremblement de terre ñu ne ko yonent bi loolu kañ lay doon mu ne buñ ñu ba sama xeet di naan sàngara di sol sooy bu ñu ba góor ñi di doyloo góor ñi jigéen ñi di doyloo jigéen ñi nañ xam ne ci la loolee di am tey ñu ngi ci jamono joo xam ne nii ñu ngi woote góor ñi ak góor ñi muy góor jigéen jigéen ñi di doyloo jigéen ñi mooy lesbienne kenn ku nekkoon xam na ne mandarga yi yonte boo xam ne bu li amee bis penc mi ngi waaj yi ñëw agré mbokk yi ki am xel nag ki xelu dëgg-dëgg mooy ki bàyyi nammeelam te yittewoo nammeel ak boroomam ki am xel dëgg-dëgg mooy ki nuur sax ci topp boroomam mbokk yi ki am xel dëgg-dëgg mooy ki bàyyi xel li yàlla dénk mboolem jaamam yi suñu borom dafa wax ne dénk naa leen yéen dénk tamit ñi nga xam ne noonu laa dénk woon ñi leen jiitu woon ci ahlul kitaab dénkaari bi nag benn la mooy ngeen ragal yàlla kon mbokk yi ku am xel day jël ragal yàlla def ko yoon wa jaar day jël yàlla def ko yoxantuwaayam day jël ragal yàlla def ko jëfam ji nga xam ne moom lay xaare bis ba nga xam ne kenn ku ne la nga jëfoon dang ko fekk mbokk yi ragal yàlla mooy yaxantub ñu taxe ragal yàlla mooy ndey tolub xéewalub ñi jege yàlla te ragal yàlla mooy jëfe ndigal yi bàyyi ay tereem képp koo xam ne sa bakkan wala adna moo dox sa digganteeg jëfe ndigal yi bàyyi tere perte nga képp koo xam ne àddina moo dox sa digganteeg topp sa borom ak sa bakkan ak sa bànneex nga xam ne sa bànneex ak sa bakkan ngay topp ba da topp digal yàlla kooket perte nga mbokk yi ku bëgg a mucc mooy ki fexe ba fegal boppam fegal bakkanam seytaane ak bànneex li ëpp ci nit ñi seen bakkan mi ngi ci loxoy saytaane ak bànneex mbokk yi nanu tuub dellu ci yàlla te bu ñu tuubee tuub gu sell ba noppi ñu fexe góor góorlu a defati bàkkaar moo xam bu ndaw la moo xam bu mag la nanu xam ne suñu borom wax na ci téeréem ba lépp lu ngeen jëf moo xam lu tuuti la moo xam lu lu lu rëy la suñ borom bind na ko te it am na bis boo xam ne bu ñëwee kenn ku ne ci yéen la nga jëfoon da ko fekk mu teew suñ borom nee na na ma ragal na ngeen ragal bis ba nga xam ne ci ngeen ci ngeen ci ngeen di dellu ci yàlla mbokk yi Sëriñ Tuubaa daana wax ne bokk na ci màndarga yi mu ci fitna yi mujj jamono dañuy dem ba fa lu baax daan jóge ñu gis safaan di fa jóge nit ñi di ko roy mbokk yi Cheikhul Khadim nee na ku bëgg a mucc sa bakkan del def lu baax del def aw yiw wafaalul xayra laalakum tuflihuna ku bëgg a mucc ci bànneex na nga sóobu ci yoonu yàlla fastaqim kama umirta ku bëgg a mucc seytaane na jaamu yàlla ndax suñ borom moo ne inna ibadi laysa laka alayhim sultaan ku bëgg a mucc ci àdduna nag wari àdduna ku ci bëgg a mucc na xool lu baax ci àdduna mu jàpp ko lu bon mu bàyyi ko luy ak yàq mu bàyyi ko daal di ne falaa taxurannakum alxayaat dunya wala yaxurannakum billahi l mbokk yi bokk na ci waxe sëñ Tuubaa mu ne lépp lu ngeen bëgg te di ko wut na ngeen ko wutee ci topp yàlla lépp lu ngeen ragal te bëgg yàlla fegeel leen ko na ngeen ko fegee na ngeen ko sàkkoo fegu ci bàyyi mooy yàlla képp ku da ku daw jëm ci ngërëmal yàlla mbooleem di nga gërëm daw wut si waaye nag képp daw jëm ci leneen lu gërëmal yàlla mbooleem loo ragal daw jëm si ci yow mbokk yi sëñ Tuubaa daana tomb ay tomb tomb ñeenti tomb ñaar ci kanam benn ndeyjoor benn càmmoñ ba noppi daal di wax ne li la yàlla digal moo ne sa kanam li la yàlla tere mooy tomb bi ci sa ginnaaw mbooleem li nga bëgg di ko wut mooy tomb bi la féete ndey joor mbooleem li ngay wut li nga ragal te di ko moytu moo nekk sa càmmooñ mu ne nag soo bëggee nag li nga bëgg nga am ko gaawal jëfe ndigal yi soo jëfee ndigal rek li nga bëgg nga am ko soo bëggee mucc ci mbooleem li nga ragal gaawal bàyyi tere yi kon mbokk yi yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla nañu yàlla jégal suñu bakkaar yu njëkk ak yu mujj yu ñu xam ak yu ñu xamul yu ñu tay ak yu ñu tayul bu ñu ko jégalee ba noppi mu soppali ñu ko tiyaaba te aar ñu sàmm ñu bañ bañ a defate mooy yàlla aqulu qawli hada wa astaghfirullahi wa lakum wa li saa'iril muslimin ñu ngi siyaar ñëpp sëñ Basiru Touré fii ci saam seen dongo bu ñu wax Alla Seye moo ko jëli woon ñu ngi leen siyaar ñaan ñu ngi siyaar ñëpp ci àjjuma ji